danga ko xeeb lu ci waay def dangay nga yéene lu ko ngir xam ak yaakaar ak séentu pay gi nga xam ne moom la ci suñu borom defal boo liggéey kon nag pëste bu ci waay amoon ak yitte bu ci amoon na ko gën a yokk ngir xam ne ndigalu Sëriñ Tuubaa te at mu jot fu mu àgg rek bu déwénee dana ko weesu kon ñu ñaan ñu àgg ca jàmm te day ceeg tawfeex day ceeg ngërëmu Sëriñ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 dañ doon fagaru yàlla dimbalu ñu ba lañ di doon tiit amul ren mu wulli mais nag ñàkk yi ñëw na loolu mooy mooy mooy différence bi kon boog li ñuy def mooy yokk liñ defoon daaw ci wàllu prévention ak liggéey ci ba xam ne lañ doon séentu amul mais aussi li suñu borom indi muy ñàkk yi fexe ba ñëpp jot te ñëpp ñàkk loolu nekk na donnée bu bees loolu sant yàlla la alhamdulilah rabbi alamin bi ñàkk yi ñëwee te xam ne ku ñàkk moom moom du la faat te daaw amuñu ko woon donc nit nag da ngay xool li la suñu borom defal donc alhamdulilah rabbi alamina kon boobu message boobu ci kanamu docteur mi nga xam ne moom laa jëkk jox paral moom laay lancé ni ñëpp takk masque ni ñëpp ñàkk bi moo xam ku dëkk ci région bi la moo xam ku dëkk Touba moo xam kuy ñëw Touba aussi da nga góorgóorlu ba boo gisee fu ñuy ñàkk nga dem ñàkku te tey takk sa masque loolu daal mooy appel bi may bi may lancé beneen bi mooy di am yaakaar ne ginnaaw wàllu santé wàllu sécurité gis ngeen force de sécurité yi ñoom seen xarañ ku nekk xam na ko seen taxawaay ku ne xam na ko noonu dañ ko taxawee woon daaw noonu dañ ko fas génne taxawee ren wala lu ko ëpp loolu dal la xel police wax na yi wax na euh, sapeur pompier wax nañ rawatina nag sapeur pompier te waxuma la mbas mi waaye ndax euh, màggal day tombeek nawet boole ci mu nekkaat beneen défi encore naka la ñuy def contexte màggal bu tombeek nawet en plein milieu de l'hiver au mois de septembre là aussi avec euh, tali yi nga xam ne mën nañ jël ndox koñ yi nga xam ne mën nañ jël ndox yan matuwaay la ñu ànd ak waa mairie ànd ak ak waa ONAS ànd ak ak waa ministère de de ah loolu aussi nekk naat beneen défi bi nga xam ne du du du yomb lu ma tax xoolaat ci wàllu ndox nag aussi séntu nañ ay amélioration gis ngeen forage bu bees bi war def à lieu loolu aussi dal na xel te daaw amul woon dalal nañ suñu xel nag waa waa waa OFOR nañu forage boobu di ko mettre en service ci màggal gi loolu euh, dañu vraiment bu bu ñëwee dina améliorer la situation parce que nit ñi dañuy sonn bu baax ci wàllu ndox jamono yi jamono yi jamono yi màggal naam liggéey bu bari def nañ ko sous préfet taxawal benn comité bi nga xam ne ñu ngi saytu lu jëm ci affaire ndox mi comi comité boobu vraiment dynamique la ñu gis naa seen rapport yëpp ça veut dire que ne yéen pare ngeen sax balay euh, CRD bi pour ñu jéem a saafara problème mu ndox yi am Touba